le débat politique bi yóbbu que ci débat de bas étage. Mhm. pour peut-être nous tirer vers le bas et ça nous le refusons. alors Abdoulaye en 30 secondes. le, le mot de la fin je crois bien que bon vivement vraiment. le débat programmatique. ça fait plus de deux ans qu'on qu parle de la même chose, je suis répète candidat. la même chose. Je suis candidat oui, oui. pour montrer réellement que Maki n'a pas de bilan. Je suis <laughs> candidat et pas Malik. Ah. Je lui lance des bilans. On va organiser un autre débat. Je rapport surtout à la question de la jeunesse. On va parler de ça avec un confrère c'est c'est non en réalité nous sommes pressés Donc, si on est fatigué si lenen, si programme si culture. si si économie si agriculture nous devons wax ñu la confrontation du bilan du mm. président face véritablement aux différentes offres politiques war nañ Té ça nous permettra de sortir de ce carcan communicationnel où véritablement Seydou Bamba souvent na ngay dégg et propos yoo xam en réalité c'est porté par des extraterrestres aujourd'hui plus que jamais je dis encore une fois que le président a devoir la le devoir de surprendre les Sénégalais et d'étonner le monde en allant dans le sens de participer à l'apaisement véritablement de la tension te jàpp naa ni comme man je le dis moi je suis partisan parce que yàgg de nous dañu war a de dañu voir dialoguer moi je suis partisan du dialogue Oui. bu fekkee ni dialogue dina permettre suba que beaucoup ak directement ou indirectement par rapport ak l'Union ñu tabax Sénégal si walu JAM, si walu JOKO si walu xam surtout. Hum. parce que en réalité il ne faudrait pas que l'on accepte que notre société soit gouvernée par deux terreurs la terreur de la médiocrité. Hum et la terreur du mensonge Oui. cest naa ni ne mhm. comme nous attention les générations futures de nous, encore une fois Donc, répéter cette génération là parce qu'en réalité mhm. euh, les querelles de positionnement se sont transformées véritablement en partisanerie si on a l'impression d'être habité par un certain fanatisme et si on disait que le fanatique c'est un individu qui n'est pas capable de prendre au sérieux sa propre étroitesse d'esprit <laughs> en 30 secondes euh, que nous bëggoon rek interpeller euh, le ministre euh, par rapport au conseil constitutionnel Nous ñi ngi dialogue. ci dialogue que nous dañu bëgg vraiment dialogue inclusif nous nañu un dialogue xol bëgg-bëgg wala question wu sénégalais ñu invité conseil constitutionnel mu toog question bi nga xam ne ñu ngi koy posé le président de la république ci waaw wala déet da ngay dem wala doo dem mu nekk benn question boo xam ne moom bu ci mënta tontu conseil constitutionnel war cee mën a pour édifier les sénégalais une bonne fois bu fekkee ne si ni ñoom dinañ accepter décision boobu ñu xam.

Elle le président mën na candidat boobaa uh-huh. donc pour dialogue bi vraiment le lu sincère te qui am na prérogative yi mën le def uh-huh. na invité conseil constitutionnel mu répondre ci question boobu avant l'heure que ñuy egg ci ay élections bi ci des aussi moo doon ci vraiment ànd ak moom tamit ci disponibilité am ak aussi euh, ni mu ouverture communiquer ak jeunes et aussi aussi disponibilité am ci ku ko abordé mu tok wax ak yow kon donc monsieur le ministre lolou dañ la koy nangul ñi fi jaar bari na mais rare ñu gis ministre de la jeunesse bo xam sen vraiment meun nga ko gis waxtaan ak mom échanger ak mom sans autant poste ministre bi. Mm. nek quelque chose bu ko dépassé. parce que quand même buñu xolé ci. tolluwaayam ak dayam ak budget yi am na ñu bëri loolu pour mu emporter leen day yomb te moom gis nañu loolu soppiwu ko donc loolu aussi mérite la lu ñu war a la lu ñu war a fësal la wax aussi yeneen ministres yi nañu jéem a def ni moom jéem aussi vraiment jege population ba nga xam ne seen question yi nekk seen bopp li ñu bëgg a laaj dinañ leen ko mën a wax mais aussi bi ci mujj rek nga baal ma mooy tamit ñi nekk ci mbedd bi ñu ñaanaat leen ñu dellu ci kër yi mm. nee na Aïcha mm. sunu frères sunu jeunes yi sunu ñi nga xam ne ñoo bokk ak ñoom li ñu bokk te mënuñu ko dagg mm. muy Sénégal wuute ay gis-gis ak wuti ay bëgg-bëgg warut a indi jàmmaarloo warut a indi rayante warut a indi gaañante tey ji mën nañu jël sunu force de sécurité et de yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di leen néewal doole di leen xaañ di leen dàq di leen dawloo image boobu rafetul ci Sénégal rafetul ci suñu armée rafetul même ci ci li nga xam si moom moo di même nos responsables politiques mm. donc li ñuy ñaan ñëpp mooy nañu bàyyi loolu nañ ko tegaat ci suuf mm-hmm. nañ leen joxaat seen cër injustice yi fi nekk nañ ko teg ci suuf ñi nga xam ne dañu am ay démêlé ak ku mën doon mm. mais nañu comporté wu en gentleman ñu dem régler ko après ñu jéem wut yeneen voie de recours mais vraiment mm-hmm. nañu jéem a dooleel li nga xam ne moom lañ am muy Sénégal moom lañ am moom lañ bokk te moom rek moom moo moom moo moom moo ëpp doole ñëpp kenn konté wul mm-hmm. merci beaucoup euh, Néné di le di len également seen téléspectateurs yëpp di ñaan jamm wax dëgg yàlla lañ parce que quel que soit li am je pense que ce ko lalul euh, dara du ko lal mais ñu bañ jamais également que justice Mom, mooy lal yoon mooy lal jàmm doxal dëgg moom mooy lal jàmm te loolu yëpp ci responsabilité président de la république tey am na ko ko fi wax sànq kenn liggéeyutul ñu bëri ñoo ngi toog seen entreprise yu bëri dinañ nekkoon ci ay jafe-jafe dinañ continuer di nekkaat ci ay jafe-jafe juste parce que situation d'instabilité bi nga xam ne moom la ñuy dund moom moo koy gën a favoriser donc na président comprend liñ ko dénk da koy da ko war da ko war a téye ko ba nga xam que dina ko mën transmettre keneen d'une manière démocratique Sénégal mën a continuer waat nekk dans une stabilité permanente amul lenn loo xam ne day sax pour nguuru yàlla dong moo jeex mais beneen nguur boo mënti jël day jeex moo tax suñu la jóg denkee doxalal te nga doxal ci dëgg te nga doxal ci justice mais tëj bi dafa bëri et j'en appelle bala maa la parole di solidaire à tous ceux qui sont emprisonnés qui sont des prisonniers politiques à tous ceux qui subissent aujourd'hui les les affres de ce régime et d'une manière injuste. Il faudra que le président pense à les libérer parce que ay prisonniers politiques lañu te bëri nañu au niveau de réserve di massawu nos forces de défense et de sécurité te choona gi nga xamni mom lañuy dund jeunes yi nga xamni ñom lañuy jambar lool jeunes yoyu ben aspiration dong lañu am moy protéger li nga xam ne ne que moom mooy seeni souveraineté muy seeni sañ-sañ am na ku ñu yaakaar ñooñu japp nañ ne que koku mo leen mën jëmele fenn nañu bay ñu am droit ànd ak kooku ñun ñi nekk Khalifa Ababacar sal li ñu jàpp mooy élection yi ñëpp ci war a bokk amul kenn koo xam ni dañ ci dañ la ci war a génne ñëpp a war a bokk xalifa dafa war a bokk keneen ak keneen dafa war a bokk Ousmane Sonko mii dafa war a bokk su sénégalais yi tànnee kenn doo nga dul bokk muy président Macky su nag organiser je dis que il sortira par la grande porte ñu xam ne ne que jàmm moom mooy trésoru Sénégal moom la ñu njëkk a xamee d'ailleurs moom la ñu ñëpp xamee soo doon wax Sénégal dañ naan la la ñu am suñu jàmm ak la qualité des ressources humaines yi nga xam ne moom la sénégalais yi am may gërëm bu baax la population de Yëmbal parce que biñ ñu fay quitter c'était très compliqué moo tax ma en retard mais tous les jeunes qui nous ont aider accompagner jusqu'à ce que tay ñu mëna a ci émission bi ñu ngi leen di di remobiliser waat encore l'opposition ñu ne faté jamais une chose moy Macky Sall moy suñu adversaire du suñu ennemi nak mais moy suñu adversaire so bougan du suñu adversaire Sonko du suñu adversaire benn adversaire lañu am muy le président Macky Sall mm-hmm. nañ ko accompagner ba mu génn le pouvoir ñu jëlaat ko ñu fexé ba Sénégal bi nga xamni mom lañuy tabax à partir de 2024 mu baña a un pro un Sénégal bo xam dañuy delluwaat ci ay faits divers mhm. faits divers mooy tey taal nañ fële taaluñu fële donc il va falloir que nous créer cette force-là, cette jonction, une énergie positive et ensemble on construira un pays meilleur que celui que le président Macky Sall nous a laissé. Le mot de la fin. juste aux Sénégalais que gëm sa adversaire la am moy le président Macky Sall ben combat la am moy Macky Sall fi en 2024. Hmm. ben objectif la am moy élire le président Bougane en 2024 inshallah. man je suis contre la manipulation je suis contre le complot cause pour la légui maa ngi jot sama téléphone ñu may envoyer ben photo le ministre Pape Malick Ndour que waxna à ce que neuf personnes yi des c'est une minorité je tiens quand même à le dire que ce ne sont pas ces mots pour être honnête waxul lolo. je suis là dans le débat et lolo du ay waxam donc s'il vous plaît may tout ce qui est manipulation tout ce qui est complot nous arrêté donc je demande aussi à monsieur le ministre que ndaw ñi di manifester ndaw ñi nek ci tali bi say njabot lañu encore une fois discours d'apaisement Macky Sall war na ko mais yow aussi yelloo na ko pour nga def ko parce que ñii ñëpp say njaboot la bokk ku baax sa njaboot la ku bon sa njaboot la ku ànd ak yow sa njaboot la ku àndu ak yow sa njaboot la donc xam xam naa ne aussi vous une bonne personne malgré bokkuñu position politique

opinion politique momentanément motax parce que j'ai entendu Abdou mhm. Karim Fofana en parler ñu à perdre, donc nous, ñoo ñu rax voilà alors dafa am euh nuñ ko waxé euh, plateau bi dañ ko de Seydou Bamba sax mu ngi koy wax pour apaiser encore une fois euh, cette tension donc manipulation euh, amaana réew mi fu mu toll ni lu ci gëna manipulation mom motax et comme ci plateau Numbelane la lañ la fa am yenn kàddu yo xamante quand c'est important que nous préciser encore une fois que le ministre Pape Malick n'a jamais tenu ses propos waxul ne que ñi dé minorité lañ fi ci Sénégal parce que il yok tension rek la donc nañu nañu nañu revoir un peu peut-être euh, yakamti joxe information ou autre chose mais nous revoir un peu les choses on a besoin de calme on a besoin de paix de part et d'autre que ce soit côté euh, pouvoir à côté opposition mais on appelle quand même pas Malik, le président de la République ñu ko wax peut-être doon xaar mu communiquer ak ak euh, population par rapport à ce qui s'est passé mais on l'appelle parce que tay lepp lu am président de la république la donc ñung koy ñaan président de la république ko pour que mo apaiser cette tension parce qu'il peut le faire euh, donc di leen remercier ñepp ñëpp ci euh, plateau bi di leen on se donne rendez-vous vendredi prochain Inshallah